ma ne lii xew. mu ne lii xew. ci jëlee. mu ne lim ci jëlee. lii dafay wane ne. mu ne lii de dafay wane ne. ñi ànd ak moom ñëpp. ñi ànd ak moom ñëpp. bàyyi ko xel ñëpp. bàyyi ko ko xel ñëpp xaj nañ maanaam xaj nañ ci ci li mu am li mu am tey ñi nga xam ne ñi mooy àndal ñëpp ak ñi mu bàyyi ginnaaw ñëpp boo xaj nañ ci li Ibrahima am tey mu ni lii de muy alaamatul qabul muy mandarga bi nga xam ne yàlla nangu na ko nangul na képp ko ànd ak moom. mu ni lii de muy maanaam muy li li tegtal li nekk ci biiram. leer na ne. mu ni leer na. ki ñuy fekk fii. fi ñëw ku nekk. ku fi ñëw ku ne. jëriñu jëriñ dina jëriñoo ci. li fi serif jële. li ci fii serif jële. ku fi jógee comme dajeet. mu ne su su su su demee ki muy dajeet. dajeet ci yoon bi. ku mu daje ci yoon bi. ku mu fekki. ku mu fekki. ku ñëw sargal si ko. ku ñëw sargal si ko. am nga ci. am nga ci. mu ne yàlla na fi yàgg ci Mouhamadou Bachir. yàlla na fi yàgg ci waa Seydou Tall. allahumma salli ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ceerno hokkimo kala mo hokkete no mune ceerno samas batay jeba dellu waati mu gam sirin mbi mune ceerno basir mayna ko lépp lin ko waron may mu ni maanaam ki ànd ak ci moom mooy Serigne Camara mii wax na dégg mu ne tey jii képp ku ko tase ci Serif Ibrahima mu ne waxul ko ñi mu àndal ni délégation bi e mu ne soo dajee ci moom rek ah, mu ne da ngay am ci maanaam mbaax boobu ko yàlla may tey mu ne du yow yaa ko wax loolu mu ne du moom kat moom Thierno Samb moo wax loolu mu ne loolu de yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon wax annabiyaji e wiide moƴƴo ene moƴƴana neɗɗo fof mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam wax na ku baax dina baaxal képp ki o yeehi ha o wi mu ne dem na ba moom yonente sallallahu alayhi wa sallam ba mu ba e jaafaɗo a yaafete mu ne boo bokkee ndab yalla baal yalla def lay baalaale hay e jaɓanaɗo anne a dañat mu ki yalla nangu kadi ji boo ko nuye yalla def nangul ɗum addi hadisul musafati hadisul muwakalat ko wonde moƴƴo so dañi yimɓe kono keƴa hen mune noon moƴƴinde hadisul musafati moyi hadis manam safat nuyantinbi ak manam hadisul muwakalat moyi manam manam bokko nafdi binilakka addi man wakala ma mawfurin lahu gufira lahu mune noon mo indi keppo ko bokko lakka manam ki yallah jegguel yallah jeggalele ndeke ko mbiɗa kala mo wondi heɓat ko ko gonga heɓat mune noon mo tax mone sirin camara li nga wax tay képp ku mu àndal day am mu ne loolu dëgg la yonent moo ko wax hade moon imma ɗo min kulanmi tan wonenno gooto sene wooda mankude dañde on on goota e on ne wawi heɓɓitade gila o immaki ɗo mu ne li muy ragal moom ceerno samos benn niit rek lay ragal pour maanaam ma bañ a am ci li ngeen mu am mu ne sax yàlla mun na manam jeliwaat mo amaat a am fii donc ɗo jogaade fimde eko haala ko wonde ene woodi on gooto kulami hay ngoon yo tinno hissine mu ne ki nga xam ne maanaam dafa ñàkk a am dafa ñàkk pas-pas ci li ñuy wax fi ñàkk koo gëm ñàkk koo amul pas-pas amul ngëm ci li sëriñ yi wax kooku de moom la ragal du am ci li ñuy wax fi mu ne kooku sax mu ngi lay laabee biir balaa ngay jóg ci jotaay yi na nga pas-pas boobu ak sa ngëm boobu pour nga mun a dabaat li ñu war am ci nga am ko. mu ne mu ne borom boobu ki muy waxal na nga fàttaliku yonente sallallahu alayhi wa sallam nee mbaax ci biiru pas-pas dañ koy amee. képp ku ñàkk a mbaax di aduna ak àllaaxira ci biir pas-pas nga koy ñàkkee. mu ne loolu kay doñe leen fayida ci ñëw sëriñ bi mu ne loolu dana ngeen ko yóbbaale yéen ñii. mu ne li des kay sëriñ bi ñaanal rek. koy allah ngandi hol du moom nag ak yàlla ñoo xam rek li muy ñaan. mu ne na ngeen ko bàyyi loolu mu yéen kay na ngeen wax amina rek.

nee na sa diggante ak subhanahu wa taala nee na sa nasar yaa xam ne lu ci bëgg. nee na lan ca bëgg. nee na nan ko bëggee. nee na fan ko bëggee. boo koy xalaat sa nasar. nee na yàlla ko suñu borom tabaraka wa taala def ko ndeysaan bala ma koy xalaat. Thierno Dolli Kine. nee na Thierno Bachir xalifa bi daanu ci nii. suñu sëriñ nee na. nee na suñu sànni suñu sëriñ nee na. balaa mu koy xalaat. nee na Thierno sama sa balaa mu koy xalaat sax. yal na fekk yàlla def na. waaw yal na fekk yàlla def ko bari. nee na boole na ko nee na mi ngi xanaa ñemewuma caa dogg nee na daal li muy bëgg sax ñu ñu muy cee dogg waaye comme añaguñu waaye nee na comme añaguñu eh nañ delluwaat nag ci dal yi añ yëpp nee na añ yëpp moom nii moo ko joxe nee na xalifa bu tedd bii moo ko joxe gi indi rek laa nag bu ne nag. nag bu ne nag. jétti. jétti. mooy bant. mooy bant. ba ñu koy yeew. ba ñu koy yeew. ko xam. nee na xalifa bu tedd bi rek moo ko xam. man daal jiital gétt gi. Eh, man daal jiital gétt gi rek. laa mën moom laa. def naa ko def na ko. ñëw na ñëw si na jox si na. mooy xam. nee na xalifa bi yaa xam. gétt bu ne. gétt bu ne. nag wu ne. nag wu ne. gétt koy yeew. gétt bañ koy yeew. ci sa na teel na ne. nee na Sëriñ Ibrahima na ñu newul nag. waaye ma soppi ko. waaye nee na kon fa so mu soppi ko. dama bëggoon wax ne. dafa bëggoon wax ni. kenn ku ne ci ñun. kenn ku ne ci ñun. na yéene ci xolam. Eh, waaye na yéene ci xolam. ne. ne. jël naa ci sama dund. nee na naa ci sama dund. loolu yéene. fukki fan. fukki fan. ak ñeent. ak may ko Thierno Bachir. may ko xalifa bu tedd bi tànn yàlla ko yàlla ko dal. te nee na suñu borom soppi ko. muy ay at. nee na ku nay. ku nay. ba defoo ko. waaye nee na sëriñ nee na ku ba defoo li mu wax. boo jullee ba sëlmal. waaye nee na ba sëlmal. na nga jàng salaatul eh, fatiha. yow na nga jàng salaatul fatiha. fatiha fatiha. salaatul fatiha salaatul fatiha. ñaan yàlla nee na nga ñaan sunu borom tabaraka wa taala. mu defal Thierno. mu defal xalifa bu tedd bi Thierno Bachir. waaye gudd fan taal ay waay wér taal ak wér a taal mucc taal mucc na taal nee na sunu borom njëriñ la ko defal taal nee na doole ko def taal nee na bu kër ak bu àll taal ak bu kaw ak bu suuf taal nee na ci zaahir ak ci baatin taal nee na fi dunya wa fil aaxirati Cheikh Al Hadj Omar. nee na Cheikh Al Hadj Omar. cër yi ko yàlla jox cër yu rëy yi ko yàlla jox. yàlla bu ko ci kenn ëpp. nee na xalifa bu tedd bii yàlla bu la fi kenn ko yàlla. la Cheikh Omar bëggoon. nee na la Cheikh Omar sa maam ju baax ji bëggoon. mébét ko. mébét ko. yal na ko yàlla mottali. nee na yal na ko sunu borom mottali taal ci sa loxo bi taal. fil aalam nag. nee na fil aalam nag. kulla. kulla. addina wërngal. addina wërngal kapta.

fan. nee na sa doom ju baax ji nee na yàlla ko suñu fan. nee na yàlla ko suñu fan daal. yàlla mi nga xam. nee na sunu borom mi nga xam ne. رفع السماوات والأرض رفع السماوات والأرض رفع السماوات رفع السماوات بغير عمل بغير عمل ترونها ترونها مويكة أسمان مينا مسلم برا مويكة أسمان كن جسول تكت كن بن كنو بن كنو بكوتي بكوتي لدول لدول قدرتو قدرتو كاتنم موكوتي مينا موكوتي مينا نيان آه مينا مينا نيان ñu ngi lay ñaan yow yàlla nee na ñu ngi lay ñaan yow yàlla. yal na nañu mayal Thierno Bachir Mountakha Taha Cheikh Oumar. yàlla na ñu mayal Thierno Bachir Mountakha Taha Cheikh Oumar. téeméeri at. téeméeri at. ak ñaar fukk. ñu mën ko benn benn ami waay. benn ami waay. benn taal mu ànd ak wér taal. ak wérle taal. mucc ak muccule taal. te fu mu geesoo te nee na kat taal foo geesoo rek. nee na yàlla ñu fekk ci ginnaaw bi seen. nee na ñun ñëpp nag. ñun ñëpp la. sooy di taal. na ma ko laal rek. ñaanal ma rek ma siyaare sa maam ma wér. dama feebar dama bëgg a wér rek. naa yaa bay wax sama dama fa laaj ba li may wax. ñëpp Serigne Ibrahima. Thierno Samas mu ne Thierno Bachir yow defal na la ziyaara. mu ne kay jeex na defal na la ziyaar ñëw na ba si yow ziyaar defal na la ziyaar mu ne maanaam mu ne yow mi ak ñi ngay àndal am ngeen ziyaar bu yàlla nangu sëñ bi waaye ba nee na fii ngeen toog bu kenn jóg fii ngeen di añee. ñun ñëpp dina ñu añee fekk bu kenn jóg. incha allah waaw séeréer yi la koy wax. ndax mu gën a yomb rek. nee na ndax mu gën a yomb rek. fii la ñuy séddalee. nee na fii la ñuy séddalee lépp. bu ko defee ñu añee fii. defee yëpp. defee yëpp. julli nag. ah doo ko ñibbi nag. sëñ bi baa ngi ñaan. jox ko chéri. eh jox ko balaa muy jox. jox ko balaa muy jox. nee na alaay bi daaw. naka laal rek na laal tuuti rek. nee na ñu jàng Fatiha. teg ci ñeenti salaatul fatiha nee na yàlla tiif juróom ñeenti yoon nee na ñu yéene suñu borom yàggal xalifa bi suñu kanam nee na ni nga bàyyee xel yàlla ba suñu borom bàyyi na xel nee na koo bàyyi xel yàlla ko yàlla bàyyi xel daal nee na ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wér ak tal ak njaboot bu barkeel daal bismillah آمين آمين واكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا خدنا إليك آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ما وحدتنا على وصلك فلا تخفنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاشرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الى حرص ولا حما ولا خما الى فرج ولا خديعا يعني إلا كفرت ولا دينا إلا قضيت ولا خائبا إلا ركبت ولا كفرا إلا جبرت ولا حيبا إلا سترت ولا حسنا إلا سلك ولا كفر إلا أهلك ولا ميت إلا أهلك ولا حاجة من حوائجنا والآخرة إلا غديتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نصلك بما ذلك من اليمنى والمرسل والأولياء والأخر والحارق والبلاء وعبادك الصالحون ونصحك كما أستغفرك به ونسألك الأمن والإجابة والقبول وحسن إنك على كل الإجابة جل إلى هنا نعمة الدنيا وحدث الجهد وقالت الجمل ويبقى إلى أنت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة إلى هنا أغلقت الولوك والأخنياء أبوابهم وأنت بابك مقتول لسائلين فآنهم سائل واقف ببابك فلا تردنا قال قائدا مبر من بابك انك على كل قدر امرك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا خريف يا خريف يا مجيب له اجب لهم بركه التوراه والانجيل وثب القران احسن جميع ما اعطاناك من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا اسم ربنا تقبل منا انك انت الاوطان الرحيم انك الفضل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يشركون وسلام وسلام وسلام على والحمد لله آمين آمين آ